internationale. abonné leen ci suñu chaîne youtube ngir jot saa su nekk xibaar yu wér te ci réew mi ak ci bitim réew. seneinfo. internet ñuy bàyyi xel ci seneinfo.net ak international ñu ngi leen di nuyu fas leen defal tënkub xibaar tey vendredi di 4 novembre 2022 ñu tàmbale ko xibaaru biir réew mi. gannaaw bi ko doyen des juges dégloo démb ci mbir mi nekk ci diggam ak Adji saar Ousmane Sonko nag bésub tey bi amal na ab conférence de presse moom nag dikkaat na ci ñetti laaj ya nga xam ne moom la ko juge bi laaj nee na nag laaj na ko ndax nangu naa joxe deretam ngir ñu amal ci ab test ADN waaye Ousmane Sonko nee na loolu da kaa ndax deretam du ko jox ñoo xam ne wóoluwu leen mën nañoo dem def ca lu leen neex ñoo indi ay résultats. yoo xam ne eh, lu leen neex la moom it eh, nee na eh, lii di justice sax obligé wu ko mu joxe kon li nga xam ne moom mooy deretam beneen laaj bi nga xam ne it nee na doyen des juges laaj na ko ko mooy ndax jot naa seq ak kii di Adji Sarr Ousmane Sonko nag nee na loolu lam ko ca tontu moom moy mayu ko mu koy laaj li ni mel di sax addu ci li nga xam ne moom mooy dignitéem ak daal lii di intimité am ci dossier boo xam ne sax moom Ousmane Sonko ak compo ab complot kon la ko jàppee mu ne moom nag euh, fii ak 16 euh, mois rek dafa ñaan nekk président de la république bu Sénégal kon daal nee na loolu permettre lul kenn mu ko kay wax mu ne nag euh, nee na bi bu fekkee ne daal amul benn preuve loolu na ko teg ci suuf te jàll ca leneen. beneen question boo xam ne it Ousmane Sonko mu ne juge bi laaj na ko ko moom mooy ndax dem na fu salon boobu ñuy wax Sweet Beauté ak yan date la Ousmane Sonko nag lam ko tontu ci loolu moom mooy moom kay yàgg na wax ne dem na foofule. Euh, ci salon suite bote wante nag nee na date ya jàppatu ko ndax moom nekkul amul jot boo xam ne euh, fu mu dem rek day jël fooy indi ca marqué kon ban date euh, lafa fa dem. ci ab communiqué boo xam ne fësal na ko ki nga xam ne moom mooy ministre de l'intérieur moom nag mu ngi artu ñi nga xam ne dañuy faral di sol ay uniforme yoo xam ne sax. Euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy force de défense et de sécurité yi ñoom lañ ko jagleel mu ne nag euh, mbir mi mel mën na indi ay jaxasoo mën na taxit ay nit def dara ñu teg ko ci ndodd ñi nga xam ne kon ñoom ñooy takk der yi te fekk du ñoom loolu nag tax na ba euh, mu nga leen di artu daal ne leen nañu ko bàyyi te nag képp koo xam ne dëppoowul boobule tere ay daan mun na la caa fekk xibaaru Afrique dañ koy tàmbaleeg Cameroun foofa nag ki nga xam ne moom mooy euh, Paul Biya di njiitu réew ma gannaaw bi nga xam ne sax def nañ ñeent fukki at ci boppu réew ma moom nag euh, la ñuy defal ab euh, fête gannaaw bi nga xam ne sax moom am na quatre-vingt-neuf ans ñu ne nag li nga xam ne nag moom mooy uutu ko ci li nga xam ne moom mooy nguur ga ña farek moom daal duñ ko sax waxtaanee dont nag am na ñoo xam ne. fi mu nekk nii kon loolu soxal na leen lool ñu ne nag feet ba kon ñu koy waajal ci li nga xam ne moom mooy cent 360 section bu parti bi nekk foofale ci dëkk ba mu ñuy waajal nag ab méga meeting régional boo xam ne dina am ci hôtel de Yaoundé wante nag ki nga xam ne mooy ndey mbi liggéey di Paul Biya wóoragul nag ndax dina fa teewam déet ñu ne loolu daal benn xibaar amaguñ ko ca. colonel wala capitaine Ibrahima Traoré mi nga xam ne fi mu nekk nii nag euh, mooy jiite li nga xam ne moom mooy euh, Burkina Faso gannaaw bi nga xamee ne sax def na fa euh, ab coup d'état boobaak léegi toll ci weer nga xam ne kon mu ngi jëloon nguur gi foqate ko ci nga xam ne moo nekkoon colonel Dami Ba moom nag démb dem na fële ca Mali amal fa ab visite de. d'amitié et de travail ki ko teeru nag ci aéroport ba moom mooy naataangoom bii di colonel Assimi Goïta loolu nag mooy tukkeem bu njëkk mu amal ci bitim réew bi mu jëlee nguur gi ak léegi. xibaaru bitim réew dañ koy tàmbaleeg euh, G7 yi nga xam ne nag euh, bésub tey bi ñu ngi woo pays euh, dëkk yi nga xam ne kon ñoom ñooy produire pétrole ñu yokk li nga xam ne kon moom la ñuy produire. ci pétrole ngir nag njëg yi mën a wàññeeku loolu nag mu ngi am gannaaw bi nga xamee ne kon dëkk yooyu nga xam ne ñoom ñooy produire pétrole daal dañoo jëloon dogal wàññi e, li nga xam ne kon noonu la ñuy produire e, pétrole boobu ñu ne nag bu ñu yokkee seen production loolu dina tax kon ba marché bi daal e, yëngu-yëngu ya ci am ak njëg ya dina wàññeeku ci jamono joo xam ne sax kon ñu ngi dund guerre Russie Ukraine beneen xibaaru bitim réew lañ koy jeexale njiital réewu Turquie di Recep Tayyip Erdogan moom nag bésul bésu ba tey bi xamal na ne euh, dëkkam euh, Turquie ak euh, Russie dinañu yóbbu ay céréales te sax gratuitement lay doon kon ay céréales yoo xam ne dinañ ko yóbbu ci ay dëkku Afrique muy ay pepp yoo xam ne dinañ ko yóbbu ci ay dëkku Afrique yoo xam ne sax xiif da leen di yoot lu ko jiitu nag waa Russie kon.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 moo ko tax a jóg